très rapidement en quelques secondes li xew Ngor ñu gis ay images des images regrettables mu mel ne les forces de défense dañu nekkee ne les population nekkee ne alors que ñëw bu ñu simee seen uniforme yaa ngi koy wax boo boo uniforme da ngay dellu sa biir kër sa biir famille euh, ban message ngay ngay ngay ngay lancer moment bi ba am na sax ku ci ku ci ku ci ñàkk bakkenam ban message ngay ngay ngay lancer askan bi très rapidement ñàkk bakkan bi que information la il faut ñu rectifier ouais. parce que ki ñàkk bakkanam en fait du événement yi moo ko ñàkkloo bakkanam dafa nekkoon ci ndox mi élisu gaal moo ko dal ci bopp ouais. selon le communiqué donc, du ministère de l'intérieur donc élisu moo ko dal ci bopp mais même si c'est le communiqué du ministère de l'intérieur il faut que ñu évacuer amalgame bi ba pour mu bañ a nekk leneen parce que Sénégal gi benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar il faut que nit ñi comprendre ni raison bi ñu évoqué c'est une raison fondamentalement juste dañ leen buggu defal fii benn unité de gendarmerie pour yokk kaaraange askan wi fii ci seen boor mu tolloog jamono bi nga xam ni effectivement ku xam da ngay xam ni loolu dafa nekk utile war nañ ci communiquer ak population yi pour ñu xam ngor mooy fan ngor mooy parti Afrique bi nga xam ni moom ngay jot foo mënti jóge ci àddina bi boo jógee Europe ngor ngay jot dugg Afrique. mais balaa ñu ko doon def li ngay wax nii est-ce que mënuñu woon dem waxtaan ak population bi c'est vrai suuf si suufu état la loolu on a disconvient même pas. Mhm. mais benn moment aussi bi coow li njëkkee am. parce que dañu waxoon ne population bi ñoom ba ñu ñu woon ñu tabax fa benn caserne mais aussi dañ ne ngor yu bëri dañoo ñàkk seeni étude parce que jàng nañ des fois ba avancé mais bu ñu demee ba CM rek secondaire rek seen jàng dafay yàqu ndax problème mu koom ba pare amul lycée bu nekk ci gox bu mel ni Ngor loolu ça pose problème. comme ça mais kooku xam nga sooy expliquer benn problème mu perception la mooy li ma la wax rek ñun li ñuy wuutale gis-gis dafay mel ni diggante ki duggee ci palanteer bi ak ki duggee ci bunt bi amul yàq des des versions wax rek moo am mais dëgg newu fii ki nga xam ne dafa taxaw ci responsabilité yi tamit ni damaa bugg defar rek moo tax ma ne nan fi def gendarmerie kooku jara déglu la parce que dafa ni damay aar askan wi yëpp am nag benn pàccu askan wi nga xam ni amuñu investissement responsabilité boobu daal ni que lii nga bugg def doo ko fi def te am réew dafa am nu muy taxawee su fekkee ni ki nga dénk réew mi mu koy doxal yow en tant que groupe mën nga taxaw daal ni que lii doo ko fi defee mhm. ça pose problème donc ñu askanu ngor ak lépp li nga xam ni am na fa di jaal ñi nga xam ni seen doom dafa ñàkk bakkanam ci contexte bii mais tamit di wax nit ñi qu'on en revienne à la parce que ñooy tabaxandoo su fekkee ni lycée moo fa nekk pour mu jëriñ askan wi la su fekkee ni gendarmerie moo fa nekk pour mu jëriñ askan wi la y a pas de différence dans les choix il y ki nga xam ni fa nga nekk mhm. yow ci sa biir responsabilité ci ngay taxaw pour optionner pour dara dans l'intérêt du peuple pas dans ton intérêt mais suñ ko personnaliser individualiser débat bi dafay indi beneen débat bi nga xam ne déggoo daf fay jafe à ce moment li fay nekk rek mooy ku nekk def sa liggéey ku nekk def sa manin du am arbitre alors ko ñun doy nañ suñu bopp arbitre nanu wóoloon na nanu ànd di defar réew mi nanu ànd di liggéey te génne ci suñu biir yenn version yi nga xam ni day def lu dul gën a jaxase ki la ni kaay ma defal la hmm. topp ko wax ka sa soxla su ngeen àndee mu bàyyi nga xam ne ànd na mu bàyyi mais suñu buggee rek waxtaan rek tax kenn bàyyi à ce moment responsabilité amul fa alors